di ko replay à chaque fois te doo ci doyal. en plus di jooy. di jooy <laughs> di jooy loo métti waaw euh, parce que man damaa bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba jeex ci tàkk cest à sama lépp. sa turandoo waaw sama lépp mooma pour la bonne et simple raison sama papa daf ma daan wax ne. Mhm. tuddeewuma la ko moom moo la tuddee boppam. parce que damaa dem ba ci xabroom toog ñaan ko ko mu may ma ko nga judd ma tuddee la ko. donc mm-hmm. moom moo la tuddee boppam loolu la ma daan wax macha allah naan ma ñeneen ñëpp dañ leen a tuddee yonent bi mais yow yonent bi moo la tuddee boppam loolu la ma daan taggee donc mu nekk loo xamante ne nii aussi lu ma am moom ma ko may moom laa gëm moom laa doyloo mm-hmm. moom kese amul lu ma koy boole looloo tax ku ko bëgg ma bëgg la ko moo tax kër mag ñu baax ñi ñëpp laa bëgg mm-hmm. sëñ Touba li mu wax ci maay bu naafi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax maay bu naafi di ma def noonu Euh, voilà du ma ci doyal. def ci doyal. te Serigne Touba yàlla nañu ko yàlla fayalati. amiin waay waaw yàlla na ko gën a fayati. <laughs> amiin eh, ndax bëgg gi mu bëggoon sallallahu alayhi wa sallam. et mm-hmm. noonu boo demee ci maam El Hadj Malick nga xam ne daa bind ba bind nombre. karaw karaw ga ak pepp yaa ca nekk. Mhm. Euh, bàyyiwul dara bàyyiwul dara ko boo demee Medina bàyyi ak bàyyi ñu wax la. Mhm. na mu mel ak arxuraan. te mhm. yonent bi rek tax inspiré ko ci. mu xam ne arxuraan ku ko doyloo sa lépp mucc tey ak ëllëg. ba mu muccal ci tey du nuyu sëñ maax yi nga xam ne. waaw Baye maax yi nga xam ne. bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne yàlla jagleel na ko Sénégal. xam nga j'en profit pour vous dire bi mu demee di def ay médiation ailleurs. ñu koy ñi ko doon bàkk wala ñi mu yéemoon yëpp dañoo xamul woon li woy juróom ba waxoon ci moom laataa juddoom est-ce que xam nga Baye Niass avant maax yi di di ñu gane si àdduna la bind ci maax yi ci bayitam bi mu ci wax ne maax yi dina gane si jamono te bu ñëwee ci jamono bokk na ci ñiy fondement état. macha allah ki nga xam ne nag day fondement état faw mu dox ci jàmmi état. Mm-hmm. mooy mooy bayit bi muy wax araani bil maax yi. Euh, fàtte naa li si topp. Mhm. mais wax ci wax ju am solo yoo xamante ne nii ba suñu sang bu baax bi maax yi bi mu ñëwee ci àdduna gis ngeen jaloore yi muy def ci àdduna. entre états ci mhm. dox jàmm ak lépp.